ñaan suñu borom yi nga xam ne jóge na fi tey may ko mu wax ak Paco muy patrimoine national ci taxawaayam ci liggéeyam ak surtout qualité production xam ne parolier la woon dëgg la doon yeete doon yaraate ñu ngi ñaan yàlla mu xaare ko àjjana yàlla mu yërëm ko dëgg ñaan yàlla mu yaatal bàmmeelam ci barzak di ñaan it njabootam yàlla may leen xolu waali ak ñëpp ñu mu bokkal yal na yàlla may xolu muñ te sarax bi yàgg suñu loxo ñun ñëpp nag Sénégal di wax ni demam dafa fekk yeneen dem ñu nekk ci tiis fii ci Sénégal di ñaan yàlla mu tegg ñu natt yooyu yëpp moom mi dem nag miinante wuñu woon waaye ñeenteet ci gannaaw 2016 mm-hmm. defe naa mm-hmm. tase nañu ci bureau sama benn collègue mu ñuy wax Abes Diop. Mhm. ñu présenté ma ku ñu waxtaan tuuti. Mhm. mu tooñ ma ne ma yow yaay kii lëmbe réew mi. Mhm. ma ne ko déet papa ñun lëg lëmbewu ñu dara dañuy dañu bugg rek mbir mi gën a baax ngir mi dox mu ne ma dama lay tooñ rek maa ngi lay suivre te apprécier naa li ngay def euh, bu dee nag li ngay woote dëgg la ci yow bu soobee yàlla di nga yegg fi nga bëgg a jëm waaye nanga xam ne dina métti dafa mel ni mu waxoon yëpp gis nañ ko daat may ñaanal ma continuer dem kon nit ku baax a fi jóge li ñu mën mooy ñaanal ko ñaanal ko yàlla xaare ko ci àdda yi gën a kawe looloo taxoon ñu teew fii mënuñu woon ñàkk ñëw président parce que du dëj bu ndaw ci Sénégal loolu rek lañ ci buggoon wax ñu ngi leen di gërëm leen sant